poussé de candidature am euh, conseil constitutionnel euh, daal di koy dàq Ousmane Sonko nag war a wut euh, ku koy wutu ngir daal di doxal projet PASTEF am ku ko wutu nag daanaka nekkul lu yomb Bassirou Diomaye bi nga xamante ne nag war naa jooyanti parrainage am yi Habib Sy moom mi nga xamante ne nag ay ndaw réew PASTEF ñoo ko parrainé ñoom ñaar nag kan la ci Ousmane Sonko di tànn ki ci mujj nag maanaam Habib Sy bu ñu ko tabee lenn rek daanaka moo nekk ci gémminu ñëpp ndaxam du jur jiixi jaaxa. il n'a pas eu de couac avec. Euh, amul benn xarma yàlla ak waa PASTEF rawatina ak Ousmane Sonko. c'est un leader qui respecte le PASTEF. nekk na leader boo xam ni dafa jox cër waa PASTEF ndaxte yàgg na itam di liggéeyee ak ñoom. étroitement avec le PASTEF. daa di boole doole ak PASTEF doon na li nga xamante ne nag mën naa ubbil buntu. candidat bi ko am di ko ubbil buntu itam bu demoon euh, deuxième tour ndaxte day boole doole ak yeewi askan wi mu mel ni nag euh, diggante Jomaay ak Habib Sy euh, ba léegi nag raw gàdd gi kenn ci ñoom yóbbagu ko. Déthié candidat la Gakou candidat la. mais mën nañu xalaat aussi su fekkee Ousmane Sonko bokkul ñu tànn Habib Sy Habib Sy yaakaar na dina toog waxtaan ak ñeneen yi et foofu mën na am un seul candidat unique. kenn umpalewul ni Ousmane Sonko dafa am dayo lool ci opposition bu Sénégal waral nag ñu bari daal di koy topp ñi ko topp nag ndaxam dinañ sànnil xob ki Ousmane Sonko di tànni ngir mu daal di koy utu bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Sy Albert nag mbir yi dees naay leer. électeurs yi am nañu seen liberté am na ñu seen sañ-sañ ku xam Sénégal aussi xam na ne que les jeunes la là mënoo nii rek. ñaar weer képp daal di des ñu daal di dem ci jongante njiitalu réew mi mu mel ni nag ku nekk a ngi def kéem kàttanam rawatina ñi jàll euh, parrainage mbiru Ousmane Sonko fii ñi daw di wutali ñeneen fële mu mel ni nag ñu bari mënees nañ daal ci porox ndoll am lu bari